Madame Thiam Marie présidente de euh, coordonnatrice de l'antenne régionale publiée ce que vous payez de Ziguinchor. Euh, antenne Ziguinchor dañoo ñëw fekk si suñu naataango waa Thiès ñu gunge ñu ki benn visite ñu ànd aussi ak suñu partenaire Rosa Luxembourg ñu ñëw Thiès bëgg a visiter site d'exploitation du zircon mu am importance ki pour ñun ndax euh, ñun dañu am zircon suñu dëkk en Casamance exploitation bi dafa xala jafe eh, day dafa am ay difficulté donc ñu yaakaar ni ñun dañu war a ñëw xam lan la mooy exploitation bi nan lay demee ba nga xam ne ñun danañu am argument yu solide yoo xam ne dinañu mën a waxtaan ak population yi waxtaan également ak autorité yi won leen lan mooy euh, lan moo fi nekk comme zircon ak lan la zircon mën a jur pour population yi sonn exploitation loolu ñoo ànd dem ci terrain bi gis rencontré euh, ñi ñi exploitant yi dem aussi ci site bi gis naka lay demee li ñu fa gis mooy euh, yàqul dara ci suuf si suñu exploité ba pare danañu defaraat suuf si ba mu ba mu baax ba nga xam ne dina mën a jur gis nañ fi ay jardin yu dul jeex ay jardin yoo xam ne mu ngi ver ñu gis bu logement yi ñu tabaxal population ñu yaakaar ne loolu ay retombee retombées zircon la dinañ ci mën a waxtaan ak population yi pour ñu comprendre parce que li gën a jàqal population yi mooy euh, environnement bi environnement bi loolu moo leen ci gën a jaaxal lan la exploitation comme lan la mun a yàq ci seen ci seen dund ci environnement wu Niassane loolu moo leen jaaxal te ñun gis nañu réalité bi fii gis nañu nan nañ koy exploité gis nañu ne du yàq dara ci population bi loolu yëpp dañ koy boole dem waxtaan aussi ak nit ñi. ñun peut-être ki ñun suñu population peut-être que euh, luy problème bi moo ànduñoo ak ñoom pour ñu ñoo gisal seen bopp te loolu defe naa ne beneen mission dinañu ko may ñu mën a ànd ak ñoom ñëpp. ñu ñëw seet ñëw ak benn délégation Niakhran ñu ñëw seetal seen bopp gisal seen bopp xam naa ne lu ñu gisal seen bopp duñ ko mën a weddi. jiite antenne régional régionale Public ko P bu Thiès tey nag ñu am mbégte lool di fi dalal suñuy naatangoo yu jógee Ziguinchor muy antenne régional bi ndax coalition bi dafa ëmb sosi kuréelu société bi gën a mag ci réew mi waaye dafa bànqaasu yamul rek. niveau national région minière bu ne wala région même des bi comme Saint-Louis am nañ ko antenne régionale yu dynamique loo xam ni dafay taxaw rek pour taxawu askan wi pour gën leen leeral comme constitution bi daf ni ressources yi ñoom ñoo ko moom ñoom nag visite bi lii solos bi mooy comme Casamance zircon dafa feeñ ci Niafrane commencé guñ ko exploité ñu ci xëy na ay waxtaan mais Thiès yàlla def le troisième jugement mondial fii la nekk muy Diogo GCO ñoom ñu ni dañuy ñëw su ñëwee dem ci entreprise bi xool depuis 2014 bi ñu commencé exploité ak léegi lan moo ci jur ci njariñ lan moo ci rëq-rëq waaye itam dem ci communauté yi pour xam lan mooy seen jafe-jafe waaye nag dem ci autorité yi parce que préfet bu Tivaouane dalal nañu dem nañ ci entreprise bi tam ubbil nañu suñu bunt seen bunt ñu won ñu lépp loo xam ni moom la ñuy def en matière de RSE dem nañ ba ci les sites de recoali maanaam yi ñu village yu ñu déplacé yóbbu nañ ba seen site yooyu yëpp nag yaakaar naa ay jàngat la pour waajal pour anticiper rek ci loolu di ñëw loolu daal mooy solo si ndaje bi mais li ñuy gën a wax surtout mooy état mooy saytu ressources minérales yi pour njariñu askan yëpp état mooy joxe convention wala contrat waaye dafa am lu ñu naan contrat social quitus social permis social maanaam population yi nga xam ni ñoom ñoo nar a perte seen peut-être moyen de subsistance wala fa koy exploité Euh, conséquences yeeg impact environnementaux yi lu bari ñoo koy yëg laaj na ñoom ñu xam projet yooyu naka lay tëddee ak ban njariñ la leen jural pour mën a accompagner loolu daal mooy solo staje bi madame Thiam nag moom mooy présidente bi euh, moo yore antenne bu Ziguinchor ànd ak ay naatangoom muy kuréel yu takku nag ñoom Aliou ñu ñoom Léoni ak ñoom dinañ leen présenter léegi waaye moom mooy présente la plateforme des femmes pour la li ñu tax a jóg daal mooy rek njariñel koom-koomte yi feeñ ci réew mi muy ressources minérales yi nekk bénédiction nekk xewal aussi bien pour les générations actuelles ak xale yi juddoogul ak ak ñi ñëw ëllëg loolu mooy Sovsda di leen sant di leen gërëm di. la une délégation de l'antenne régionale de Ziguinchor s'est déplacée euh, pour venir euh, rendre une visite de courtoisie euh, à à pour rencontrer, pour nous imprégner de la situation et partager également avec les populations et les autorités sur la question de l'exploitation du zircon. Parce que dans notre région en Casamance, particulièrement à Niafran, on a découvert un gisement de, euh, de, de, de, zircon et son exploitation euh, pose quelquefois des problèmes par rapport à la compréhension sur cette question-là. C'est cette, pour cette raison que nous sommes déplacés, pour nous imprégner, pour comprendre de quoi il s'agit très exactement. Et nous avons eu donc la chance euh, d'effectuer cette mission-là, qui est d'une importance capitale. Cela nous a permis de rencontrer les parties prenantes, c'est-à-dire les autorités locales, de rencontrer les populations, de rencontrer également l'antenne régionale de publicité pour pays de caisse qui nous a accompagnés dans ces missions-là. Les échanges qu'on a eus euh, sont très fructueux. Et la deuxième chose également, c'est que nous allons, au sortir de cette visite-là, après avoir rencontré toutes ces personnes-là, tirer des leçons de l'expérience de l'exploitation du zircon au niveau de Thiès. Tirer les bonnes pratiques, mais également les difficultés que euh, l'exploitant euh, que les populations également ont eu euh, pendant l'exploitation de ces zircoms-là, au cours de l'exploitation de ces zircoms. Et il y a que pour nous, à la fin de cette visite-là, nous allons élaborer un document, un document qui va porter sur les recommandations Et, euh, et c'est partir de cette expérience que nous avons vécue. Ce que nous avons vécu, vécu ici à Niafran, euh, à, à Thiès, qui est une zone d'exploitation du zircon, et ce que nous allons vivre dans les jours qui vont venir à, à Banjul, également en Gambie. Et c'est tout cela qui va servir à faire ce document pour les recommandations d'exploitation du zircon. Je voudrais remercier très sincèrement le, le partenaire, euh, la Fondation Rosa Luxembourg, qui nous a permis de faire cette mission et qui nous accompagne également. Sur le terrain, nous avons vu que l'exploitation du zircon euh, a apporté beaucoup euh, aux populations. Il y, a eu un, il y a un changement notoire de l'environnement, les conditions de vie des populations. Nous avons vu euh, ce que ça peut apporter à une population. Mais tout cela, nous allons échanger avec les réalités qui ne sont pas les mêmes également en Casamance. Euh, les difficultés qu'on va qu'on pourrait rencontrer, c'est euh, la façon de... Euh, la compréhension des populations. Comment les populations vont comprendre cela Comment les populations vont accepter cette euh, euh l'exploitation de ce zircon-là Et nous aurons beaucoup... Euh, après le document que nous allons faire, peut-être que cela va nous servir euh, de base également pour pouvoir continuer les, les échanges avec les populations. L'environnement Le, qui est préservé, l'environnement est préservé. Il y a que, nous avons vu également les logements qui sont faits, qui sont construits pour les populations. Je que ça, ce sont des bonnes pratiques, ce sont des retombées, retombées de l'exploitation du zircon. La réadaptation des populations à ce nouveau site où ils vont habiter.